dama ñëw si semine ma gaz bi dafa am problème ba mu ne gaz dafa am problème première des choses ma njëkk def mooy wut quelque chose bi nga xam ne bu bouchon bi pour plomb bi bu kale ma am lu ma ko jëme moom moom laa njëkk a teg fii paaka bi paaka bi laa njëkk teg fii ba ma ko tegee fii dama ñëw laal beg bi nii benn tour laa def rek affaire bi benn tour ko doon visé quoi dama ko woon dindi pour xool est-ce que réellement pour xool ba xam dafa am fuite wala dara mais dama laal nii benn tour rek affaire bi disjoncté ak kii sama loxo ma daal di koy teg tourné rek pivoté ak moom fekk xale jigéen ñu ngi toog yuuxu commencé woon nañu yuuxu ñoom commencé woon nañu paniqué yuuxu ma jam ak bi rek teg ko sama kaw rek jubali mbedd ba ba muy dem mbedd ma nag gaz bi mi génn ak doole sama kaw di tuuru sa sama kaw mais ñoom dama leen tëb jusqu'à présent man nu ma def bi tëb sa xaw ma leen dama jàpp gaz bi tourné rek pivoté rek tëb leen si laa ñëw nag ba si mbedd mi nii am sang froid teg ko nii gaz bi di dem ma ne booy yëpp ñu fi taxaw ñu pousse leen ñu pousse gaz bi dem ba évaporer ba des léegi mu des liquide bi mais ñoom lu ñu taxaw yi man maa ngi xalaat liquide bi fan laa koy sotti mais comme ça fekkoon na mu taw fii am ndox man leen nañ ko bàyyi tuuti ba gaz bi dal gaz bi dal après ju sama sœur bi dem woo benn mécanicien xam naa instant yi moom tamit dafa tiit mécanicien bi ñëw gars yi ne ma nañ ko sotti man leen xaar leen tuuti après seen ko jël sotti ko fii jël ndox mu bëri sotti ko ci affaire bi soog a dem mais man sama problème mooy valve bi nii lii lii nan la mun a desee si bec bi c'est ça problème lii nan la mun a desee si bopp bec bi li mooy la mun desee si giteel gaz bu bees la te dañ si dem taal añ muy xeeñ dañ si dem taal añ muy xeeñ bon bi ne së bi gaz bi mu ngi xeeñ ñu fay ko jël beneen gaz eggalee ko añ donc cela veut dire que kon bu ñu si toggaatoon cinq minutes ou bien dix minutes de plus rek musiba am le fait que ma laal ko rek mu te mu dañ ça veut dire kon affaire bi dañoon na ba pare mais yàlla moo si def sutura. buñ ci taaloon kaa ci briquet parce que mi ngi dem sama sœur bi ba mu ko génnee ba mu ko tegee li mu ko teg yëpp gaz bi ngi génn. mais ñemewu koon wax parce que xam na ni kii bu ko waxee mu def mu indi fi musiba mu noppi ne leen bàyyi leen ba Cheikh ñëw bu ñëwee moom dina ko laal waaw. man chaque instant ma gis ko muy di yëddu mane kii lan lay sëgg ndekete boobu gaz baa ngi génn ndekete boobu gaz baa ngi génn chaque instant ma gis ko mu sëgg ma mais kii li muy sëgg ndekete gaz baa ngi génn di génn neen ma xam ne su ma ko waxee damay damay indi problème te dinaa yuuku ci fii mu ne patt rek mais gis nga kii bi ñëwee daf kii dafa ne tag rek ñu ne ko rek lay problème bi wallaay la asi te te moom kii bi mu yëkkatee ba ba kii bi génn ah li génn ci ci génn fii sax kenn xamul nu mu toll sama doomu sër mu xam ne dafa waccu waccu waccu saal beeg lépp sama yaay dafa nekk ci chaise roulante mais dafa jóg ba ci yàgg toogaat sama benn sër moom dafa daan dafa daan mais heureusement ñu ngi sant yàlla loxo bi rek moo xoos ci lañ mu mujj woo après bu naa ma saw parce que boobu dañu jeexle moo tax ñu woo bu naa mu ne mi ngi armeel dafa bàyyi lépp ñëw lii lii c'est fabrication wala man je me dis toujours si total parce que lii valve bi nan la mun desee si beg parce que des si bec bi déjà amul protection sama gis-gis man amul protection parce que foo war am protection fii amul protection waaye fii amul protection fii amul protection donc man su ma su ma amee ku may blâmer total laay blâmer parce que gazu total la mi ngi nii dañul munul dañ laalu ma ko sax da munul dañ nan la mun a nan la Volf mun a génnee donc daf daf fa ëppoon du quelque chose bi nga xam ne mesure am la net parce que bu nekkoon mesure am du génn bu nekkoon mesure la net du génn donc mën nañu jàpp ni erreur de fabrication. erreur de fabrication je sais pas xaw ma erreur de fabrication laa ko mën a tuddee xaw ma nan laa ko mën a tuddee. xaw ma nan laa ko mën a tuddee au fait. mais si ñoom la. si borom oto gaz bi aussi si signalé nañ ko. ne ko gaz bi nga wàcc woon fee am na problème moom ñëw na. Mouhamed da tudd mooy L200 bi joxe gaz fi yëpp. ñëw na bi mu ñëwee. mu ne ndax mën na jël kii bi ñu ne ko yëgal ñu wan la gaz bi nu mel mais duñ ko joxe parce que buñ ko joxe woon tey du ñu am benn preuve. joxe wuñ ko parce que lii moo taxoon joxe wuñ ko ndax lépp lay wax dafa war am preuve mais lu amul preuve baaxul moo tax ñun ñu téye suñu gaal téye suñu bekk dem nañ nag def nañ déclaration dem nañ police fii fa la jógee léegi nii yàlla rek moo ñu sutaa mais bu bu bu amoon kon li dooloon fee rek moo ñu waaye nañ sant yàlla nag bu ñu toogee ba di ko nettal nii alhamdulilah rabbil alamin la ñuy wax di sant kii itam bu naa mi nga xam ne daf ñu jàppale aussi dëgg yàlla jàppale nañu baax parce que ay jigéen kese si gën ñu jaaxlee rek mooy loolu mooy loolu awa leen ñoom ñëpp gaz bi di sotteeku sama kaw ba fees hmm. nii laa ko téewee nii gaz bi di génn nii tu t'imagines gaz bu fees dell di génn si kaw nit nii nii laa ko téewee daw si ba fii am sang-froid teg ko nii ne booy pousse la lu ne man sama bopp man sama bopp lu ne mënoon a ma daal mhm. parce que sama yaram yëpp gaz la instant boobu man sama bop lu ne munoon na ma daal parce que sama yaram yë waaw man moon je sais pas xaw ma parce que moment boobu amatoo benn réflexe amatu amatoo leen loo def comme comme lu dal waa Derklé rek moo ñu la mën dal c' était la même chose sama yaay mi ngi fi def saison la loolu rek chose benn la benn la de toutes daal muy lu ñuy ñaan mooy autorité yi ak ñëpp nañ jug si gaz yi nañ jug si gaz yi nañ xool gaz yi lan moo la na gars yi xoolaat problème bi lan la si fois que mu jar ñu arrêté jaay gaz sax nañu arrêté stock bu fi nekk. stock bu fi nekk bu jaree ñu arrêté ko nañ ko arrêté ñu vérifié waat gaz yi lan mooy problème bi. waaw ñëpp def attention si autorité tamit ñu ngi leen ñaan ñu vérifié waat gaz yi. Mhm. xool gaz lan moo si ne bu daree ñu arrêté ko bañ ko jaay sax nañ ko arrêté bañ ko jaay. Mhm. ba ñu vérifié ba pare parce que man man lii ak lii ak waa Total man damay porter plainte. Mhm. parce que mu leen di poursuivre dama porter plainte ma dama leen di poursuivre maa ngi remercier ñëpp nag merci. li fi xew rek démb mooy comme kër gu ne rek boo yeewoo di togg añ sa kër donc bi midi di jot la jànk bi newoon ci biir waañ bi gis ne que gaz bi mu ngi am benn flamme diggante diggante bec bi ak gaz bi ci digg bi noonu donc bi mu ko waxee ñaaña ñaaña ne ko fay ko mu fay ko ci la ñu woo Cheikh Diène mi nga xam ne moom kese moo fi nekkoon góor ci biir kër gi muy génne gaz bi pour jéem demoonte bec bi comme ni ñu koy defee chaque fois mais fii nag bi yoon bi muy démonter bec bi euh, soupape de protection bi daf ko toppaale soupape de sécurité bi daf ko toppaale gaz bi génn ak doole bu kenn xamul donc ñu ngi koy remercier moom ci cent froid bi mu am ba nga xam ne ak dal la àndee ba génnee bouteille bi ci biti teg ko mu évaporé wu bu jeex léegi nag période bu amoon dara lu tàkk étincelle bu ndaw ci kër gi ci beneen situation lañ doon nekk mu jural ñu xewoon fii mar d'Italie en l'espace d'une semaine loolu nag dafa doy pour que ñu wax ne que euh, gouvernement du Sénégal nga xam ne am na euh, ministère boo xam ne ñu ngi koy ministère en charge de la protection civile dafa war a ñëw ordonner d'abord le, le retrait de tout ces bombon des boutiques parce que man dama koy qualifier sax comme ay bombes à destruction massive ndax gis nañ jéye ji mu def fii ci biir Derklé ñu dindi ko bu ñu ko retiré ba pare Euh, ñu daal di seet benn espace dédié boo xam ne mën na nekk le grand fournisseur nga xam ne bu responsabilité yi amee ci foofu la ñuy dem directement. parce que instant bi nii ça va dans tous sens boutique boo dem fekk fa bouteille yi. léegi rek ci biir kër euh, cité cité Éthiopie ndaw si mu ngi may ne këram wakaam dal na ko fa fan yi donc ñii xëy am chance am presse fi ñi ñëw ni donc bi jëyee ji amee ci la ma awataal ak Cheikh woo ma bàyyi li ma doon def parce que maa ngi woon armée li ci benn enterrement si laa ñëwee fekk Cheikh ñiin maîtriser situation bi mais li ñuy wax rek mooy euh, les amis de Derklé nga xam ne kër gi ñu ci waa kër gi yëpp ci lañ bokk ñun ñu bokk ci euh, danañu jël suñu responsabilité ba mu mat sëkk d'ailleurs ñu ngi remercier le maire de Dakar Barthélémy Diaz nga xam ne mettre na à la disposition des famille un pôle d'avocat bu topp lii ndax lii kenn du ko bàyyi nii te ñu ngi invité aussi entreprise française yi nga xam ne ñoo nekk ci périmètre communal bi lu mel ne Auchan ñu jàppale dans le cadre d'une solidarité seen mbokk mii nga xam ne moom mooy Total Énergie naka la ñu mën a ñëwee en assistance à ces familles te ce qui est mooy ba léegi Total yónnee wu fi amul benn émissaire am wala kenn distributeur am bu ñëw fii ci kër gi. donc moo tax ñun danañu ko dénoncer ba jusqu'à la dernière énergie. démb vidéo bi def nañu ko dugal nañ ko am na presque deux cent mille vues ci guddi gi viral ñëpp partagé ko te danañu continuer dénonciation bi ba keroog fi mbaxane di doonee benn. di jaay bonbonne de grâce ak risques yi si nekk yëpp. waaw mais xam nga pour man euh, gouverner c'est prévoir état moo war a jël responsabilité bi lii yëpp dafay wane taar yi nga xam ne chaque jour mu am ci kër yi lii nga xam ne moo xew fii ci kër gi démb xew semaine bële cité Éthiopie ba yóbbu fa ay nit chaque jour mu am ci kër yi ñi ñi di rëcc. ça ne veut pas dire que les gens sont en sécurité maintenant état moo war jël kaaraange ñi en charge on peut pas continuer comme ça ay dix morts 15 morts chaque jour sans que cela n'émeut personne. dëkk du doxe noonu. est-ce que ba léegi loolu jaay boutique yi di jaay ay gaz. waaw dama ne loolu ci état moo war a jël responsabilité bi état moo war a Pape As mu ngi koy wax léegi état moo a jël def ay espace dédié yoo xam ne uniquement ku war a changer sa bopp mais même boutique yi di jaay gaz bi c'est pas en sécurité donc lii yoon la ñu teg loxo cambaraat ko xool naka la ñu war a amaatee départ bu bees par rapport a ces bonbonnes. est-ce que périmé wul wala date moo tax ma ne dafa jaadu ñu teg loxo sensibiliser waat nit ñi. def ay capsule ci chaîne yi ak yëpp muy man muy yow muy keneen lii mosuñu ci tenir compte man personnellement daawuma ci tenir compte. bi événement bi amee fii laa gis ci à travers les plateformes ñu naan am na ay date de péremption et tout mais gouvernement moo war dugg sensibiliser def ay capsule waxtaan ak nit ñi ci utilisation gaz yi. borom guddi bi wax ma ne ko dem taxaw dem taxawee ne ne bàyyi ko nii ne ko puudar affaire bi ba jeex mooy mécanicien bi ñëw ñu jël affaire bi. dara fii dafa amoon ndox bi ñu may chance mooy dafa amoon ndox et puis dafa fekkoon tali bi tooy. parce que man li ma taxaw fële yëpp loolu laa taawoon ba pare. xam laa calculé fan laay sotti liquide bu des bu diggee wax ak man mais man li ma taxawee maa ngi calculé fan laay sotti liquide bu des su ko yóbbee koñ bi ñu ne da bàyyi sa kër. Uh-huh. su ma ko yóbboo koñ bi ñu ne sama kër. bu jigéen bi ne ma nañ dem ma ne ko noo taxawal rek ren laa